Pastef nag xam ngeen ko yéen ñëpp ñun ñëpp xam nañ ko ci euh, gëm ni projet bi c'est un projet commun projet commun nag mooy loo xamante ni ñun ñëpp a ko bokk donc bu mbir yu mel ni amee dañuy delloo lépp ci base yi pour respecter des choix démocratiques nga xam ni moom mooy seule condition pour que coow du bëri euh, waaye démocratie dafa ànd ak lu ñuy wax responsabilité boo gisee nit ñi bañ démocratie ñu ci ëpp dañ naan surtout bu dee ñun nga xam ni kii africain nga xam ni dañ naan la ñoom tàmmuñu ko dañuy confondre démocratie ak anarchie maanaam boo jox démocratie mooy ku nekk def lu la neex ku nekk wax lu la neex am position boo xam ni moo la neex ci situation yoo xam ni enjeu yi pourtant dafa grave ndax dañuy wax nekk ay député de rupture mooy député yoo xam ni ñëpp dañuy xaar ci ñun ñu am ay législature yoo xamante ni musul am wala gëj naa am ci Sénégal muy des une législature de qualité ña fa nekk xam lañ leen yóbbu fala ñu ay député yu président fal ñu député yu Pastef député du peuple la ñu war a représenter un pouvoir war ko équilibrer ak l'exécutif war a garantir lu bëri di évaluer les politiques publiques di contrôler l'action du gouvernement mu nekk une mission une responsabilité bu diis a diis a diis a diis moo tax nag bi ñu lancé cette procédure démocratique de choix ñu xam ni nag président dafa parti bi dafa delloo responsabilité yi aux citoyens aux membres de Pastef ñu war a xam cër bi ñu leen jox nan la toll dayo bi mu am pour que ku nekk waslu ci àq xam ni lii ñuy def warta nekk mukk anarchie waru ko jur ndax ñun dañuy seetlu dañoo nekk parti boo xam ne lu ñuy def àddina bi yëpp daf ñuy teg bët àddina bi yëpp daf ñuy teg bët te waruñu may ñi nga xam ne ñoom la xeexal fuñ ñu yabee ndax ñun sunu parti slogan mooy don de soi pour la pati don de soi nag Pastef da ko wane ci anam bu gën a rafet muy xeex bu metti boo xam ni li tax ñu réussir ko mooy dañoo def en sorte que euh, kii bi ñu xeex ñàkk suñu bakkan ñu faat suñuy nit exiler ñenn ñi mutiler ñi yàq ñi seen liggéey yàqal ñu bëree bëree bari fu metti la ñëpp jaar ba yegg si fii ñu yegg si ñu ne nag dañoo jot nguur léegi beneen test bi mooy bi ñu nekkee opposition parti bi au pouvoir Macky ki ñooñam dañ ñoo testé xool suñu dëggu yàlla yi testé ñu xool suñu dëggu ñu wane ni parti bi ñëpp a dëggu xeex bu metti ak état ba jël un président bu ñu tëj kaso génne ko mu mu gagné dès le premier tour mu nekk lu musul Afrique léegi nag ñu ne. dañuy nattaat don de soi natt bi gën a am solo mooy le patriotisme bi ñuy woote à l'épreuve du pouvoir bi ñu demee ba jël nguur nag dañuy seet nan la ñuy comporté woo ñëpp ni ñu yéen ak sénégalais yëpp a yem bu ngeen jëlee nguur gi rek ñu xam seen i jikko ci xëcco ci buux buuxante ci rayante ñuy xamal nit ñi ni dañoo woote des procédures démocratiques waaye ku nekk war ngaa waslu ci àq xam ni li coow liy bëri yëpp quatre-vingt-deux députés muy juróom-ñetti fukki député ak ñaar yu góor ak juróom-ñetti fukki député ak ñaar yu jigéen kese moo mën a am ci Sénégal yëpp ak diaspora 82 députés hommes 83 députés femmes wala 83 députés hommes 82 députés femmes muy 165 moo mën a am ci Sénégal ak diaspora donc fichier électoral boo xam ni 7 millions d'électeurs ñoo ci nekk 7 millions. ñu war cee tànn quatre-vingt-deux ci góor parce que parité bi moo tax quatre-vingt-trois ci jigéen moo lay wan ni ñëpp mënuñoo nekk député loolu mënul nekk bu ñu jëlee ni diaspora bi dañ koy jël en contre jël territoire national sept million kooku dafa war a delloo ci xel yi li ñu wax raison garder savoir raison gardé nit ñi comprendre ni y a que quatre-vingt-deux hommes et quatre-vingt-deux femmes à élire c'est pas 500 postes wala 1000 postes déedéet donc ñun tey am na comportement boo xam ne buñ ko amee ñu dégg yenn département yoo xam ni ñoom xëccoo ba dina yegg ba ci ñoom kese ñu proposer 82 candidats wala 100 candidats loolu day wane ni ñi ñuy seetaan dinañu yàpp te ñun kenn war ñoo yàpp ndax ñun ñoo mën lu kenn mënul muy don de soi. gis nga dafa am mission bu fi ñëwoon pour gars yi xam la responsabilité qui nu incombe mission yu bëri parti politique yu bëri Afrique dañ fay yabal ay nit ni il faut ñu xam nan la ñuy gagner pouvoir démocratiquement ci nekk ci opposition ñu ne dañoo bëgg ñu wax leen suñuy recette ak suñuy secret gis nga loo wax wax expliquer leen dañoo am leader boo xam ni macha allah dafa dëggu question yu am solo la ñuy waxtaane duñu corrompre benn électeur dañuy wax dëgg wax leen suñu idéologie nan la utee gis des ba pare nag mais ñu ne la ñoom ñëpp question bi ñu lay posé mooy nan ngeen di def ba militant bi du ngeen ko jox xaalis ñoom ñoo lay jox xaalis nee nañ ñoom loolu mystère la ci ñoom ñoom mënuñu comprendre en Afrique ñun fan lañ jaar ba sunuy militant di financer parti parce que loolu ñoom nee nañ recette boobu lañ bëgg a xam fu mu jóge donc nekkul lu ndaw mu nekk affaire boo xam ni c'est extrêmement important li ñuy wax pour demain incha allah gis nga nit bu ñu la joxee cër da ngay xam cër bi ñu la jox lan la nga mesure enjeu yi nga xam ni moom la ñu nekk nii lii du ay foodu caaxaan dañoo fal ay ab président fal mu ànd ak premier ministre am ak ay ministre am ñëpp engagé wu pour changer dëkk bi bu ñu bëggee changer dëkk bi nécessairement gis ngeen ils ont besoin d'une assemblée nationale dañ ko soxla assemblée nationale bu bees parce que liggéey bi enjeu yi moo bëri. enjeu yi mooy dañoo war a voté waat ut constitution boo xam ne dañ koy defar tëggaat ko ba Sénégal amul benn régime bu fi mën a ñëwati jalgati institution yi ba li ñu dundoon ci musiba dootuñu ko mënatul am mënatul am c'est fini les problèmes institutionnels dañ ko war a defar gis ngeen ni on doit euh, defar une cour constitutionnelle équilibrer waat les pouvoirs def des réforme justice defaat ay loi yoo xam ne mooy protéger suñu économie souveraineté économique nu ñuy atteindre souveraineté alimentaire souveraineté budgétaire ba lépp sax duñ ko defati maanaam ñun dootuñu toog ay FMI ak banque mondiale ñëw naan ñu xool leen gauche xool leen droite lii ñu hérité moo tax mu metti macha allah malgré coono ak budget jàmbur bu ñuy exécuté gis ngeen ministre nelawul ci dëkk bi bu inondation yi jotee lu metti metti metti metti dañuy pare dellu si terrain bi ngeen gis les ministères concernés coono gi ñuy daj pour que population yu dund affaire bi de façon boo xam ni dinañ ko mën a xaw a supporter tuuti on a besoin d'une assemblée nationale bu bees pour am budget bu bees budget boo xam ne avant fin d'année bi ñu ngi ñaan yàlla adopté ko budget boobu permettre une budget de trans un budget de transition pour ñu mën a stabiliser dëkk bi mandat bi mandat wu defaraat institution tëggaat état la samp ko ay fondation yu bees fondation de nouvel état boo xam ni démocratie état de droit liberté mënatul am corruption mënatul am dara tout tout tourné vers le développement économique ñu wàññi wax wàññi coow wàññi xiiroo wàññi ŋaayo ku mën a gouverner gouverner alternance yi di am ni mu war a amee donc enjeu yu 10 a 10 moo ci am mais nag 80 165 député moo am 82 góor 83 góor 82 jigéen wala l'inverse suba ñu ngi ñaan département yi nañ waxtaan ñu xool lu mën a ne ñu jéem a séddante tey li neexoon ci ñun li nga xam ni moo ñu waroon mooy bu ñu la joxee démocratie ñun ñëpp ñu dellu woon daal ni président Ousmane ginnaaw critère pour tànn mënoo ko xam ndax assemblée du diplôme du concours booy seet kan moo gën a sacrifié wu ci ci parti bi mais mënoo ko xam am na ñoo xam ne tëj nañ leen am na ñu ñàkk seen bakkan am na ñu ñu gaañ am na boo nee yàgg am na koo xam ne yàgg nañ ci parti bi am na ko fi def ñeent juróom-benn weer mais tëj nañ ko fukki fukki fukki ñaari at. am na ñoo xamante ni lañ lañ yàgguñu ci parti bi mais sacrifice bi ñu subir moo gën a diis donc mënoo indi critère objectif nit ñi ñoo mën a xam rek kan la ñuy yóbbu en tout responsabilité foofu. parce que responsabilité bu diis la député de rupture la ñu wax de rupture donc tey nag sunu patriotisme dañ koo questionné. li gën a neex tey jii mooy ñu ne woon ginnaaw période bi xat na te période bi dafa xat délai gàtt tànn démocratiquement dina jafe mën na indi ay pëccxoo ndax dafa am ay équilibre yooyu téye ci région yi équilibre yooyu téye ci communauté yi équilibre booyu téye ci profession yi ñëpp du ñu ne forcément dañuy jàng dafa soxla baykat soxla nappkat soxla artisan soxla dawalkatu euh, soxla transporteur profession yëpp ñoo war a représenté wu assemblée équilibre yooyu yëpp boo ko bëggee te nan ngay def te c'est la responsabilité d'un parti mu fexe ba buñ ko defee sur l'ensemble du territoire nationale mu am équilibre li gënoon a yomb mooy ñu jox la démocratie nga ni nangu naa démocratie mais gis nga ñun delloo nañ lépp président Ousmane ko tànnal lu la neex gis nga bu ñu noppaloon leader bi dañ naan ko tànnal lu la neex ginnaaw période bi dafa xat bàyyi wóolu nañ la acca tànnal kootaan nañu ànd ak moom ñëpp xam ni ñun on est des désintéressés politique ñor ñu poste ñor ñu suñ opposants yi loolu moo leen mën a sonal fi mu toll nii ñëpp xam na lu ñuy xaar moo tax ñu koy ñaan suba incha allah heure bu amee ay instance yuy négocier que bu fa coow am bu ngeen demee ba jàpp ni mënoo leen a juboo te ngeen xam ni département bu nekk gis nga ñaata place lañ la fi ëpp defe naa sept la am Thiès topp ci am quatre ñi si des ñëpp deux la ñuy am ak kii mënoo fu ñuy am góor ak jigéen wala quatre candidats noo am cinq cent candidatures loolu ça ne se fait pas ça montre que am na am na problème bu ñu fàtte ni y a les élections locales à venir y plus de cinq cent et quelques communes yoo xam ne dañu leen war a pourvoir jële fi maire maire APR yi na ko nit ñi bàyyi xel ba la ñoo xëccoo ci ay parce que munoo yow élection bu ñëw nga xëccoo da nga naan naa bàyyi bii du ma coow parce que xam naa ni local yi incha ak département yi c'est beaucoup d'élections parce que ñun ñëpp ñëpp a bëgg a liggéeyal réew mi on le sait te ñëpp a nekk d'égale dignité nag patriote yëpp d'égale dignité amul maa tëddoon kasoo amul man maa ñàkkoon lii ñëpp a sonn ci parti bi ku ñu xam ak ku ñu xamul ku ñu xam ak ku ñu xamul am na ñoo xam ne xamuñu leen te liñ liggéey ci parti bi kenn ñu ko nettali donc li am solo mooy buñ ñu yàq na ku ne fexe ba bu ñu ñaawal na bu kenn fexe ba ñu dégg yoo xam ni c'est maanaam ñaari post député am góor ak jigéen ñu ne la am nga 400 candidature loolu yàpp parti bi la yàpp lu parti bi la dañoo war a wane li ñu xamee woon muy le don de soi toutes les candidatures sont valables wax dëgg yàlla li ñuy ñaan yàlla à defoo ñu delloo président Ousmane Sonko la possibilité ni ko ginnaaw xat na te jotul est-ce que duñ la bàyyi nga jël ñëpp ñu ne nañ leen respecter démocratie mais démocratie bi na ànd ak ordre fu ngeen mën a amee consensus ut leen ko kenn na ni ah man de bàyyi naa wax dëgg yàlla ngir parti bi ak consensus parce que y' bu beaucoup bu dee ay post rek ñun dañuy assumer mun ñoo gagné élection xeex ba pare ñu naan ñu seeni nit ngeen bëgg teg ci gouvernement beeg ci post yeeg yooyu mais parce que boo ñi nga xeexaloon boo leen joxul post yu ñu exécuter la say mission koo koy jox poste yi ñu war a jox appel à candidature dinañ ko ubbi appel à candidature mais yi ci des dañ koy jël exercer ko fièrement duñ ko nëbb kenn yow booy def jub jubal jubanti munoo ànd ak ñu jubali ñu jub ñu bokk ci jub jubal jubanti ñàkk seen bakkan ba mu taxaw ñooñ nga àndal donc à part les yi nekk ci gouvernement ci administration ci état pour juróomi at les plus de cinq cent et commune mais da nga am dañoo am cinq cent candidats yoo xam ni mais y a de post à pourvoir ci élection yi ñëw donc bii test la pour ñu tester suñu bokk suñu patriotisme wallahi maa ngi ñaan patriote yu bëri ñu bañ ci ñaaw nañu fexe ba buñ ci ñaaw da gaa yi jël seen responsabilité ñu xàmmee la ci di filmer fu ñuy xeexe ndax bi bokk ci candidat di saagante di ko filmer di ko génne loolu ñaaw na les secrets des délibérations fa ngeen toog di délibérer même bu ngeen amee 40 candidats noppi leen ci jarul bind am nañ 40 candidats waaw nañ ko nañ ko def ak dignité ak honneur bu ñu xoqatal kenn bu waxtaan amee rek ñu wóolante fexe baa may ay consensus ñun dañoo war a teel a dugg ci campagne bi lii war ñu tardeel suñu tànnee ba li siy génn ñu xoolaat suñu dignité ndax di fi dégg parce que Pastef chance bi mooy nit ñi dañ ñoo jox cër parce que nee nañ yéen da ngeen a particulier dëgg gi ngeen di woote moom lañ ñu toppee ñun toppee ñu ñu xaalis bëri amuñu xaalis toppee ñu ñu jàng parce que ñëpp fii parti boo dem am nañu jàng dañ ñoo toppee ci déggu ak sincère ak don de soi mooy bu xëccoo jotee duñ ñu dégg ba pare suñu leader dañ ko topp déggal ko te déggaluñ ko parce que dañuy jox xaalis ndax ñun ñooy cotiser di ko jox spécificité Pastef boobu war ñu ko bàyyi ginnaaw bu ñu ko yàq lii benn ay poste député kese la 82 góor ak 82 jigéen ñoo mën a am mooy ñun bu ñu gañee lépp laa wax de bu ñu gañee lépp 82 3 hommes 82 femmes 83 femmes 82 hommes mooy bu ñu gañee woon lépp est-ce que ñun mën nañ gañee lépp lépp 100 pour cent est-ce que mën nañ gagner 100 pour cent donc candidature yi dañ ko war a seetaat saytu ko xool ñi ñu yóbbu ñan la du nekk euh, kii rek kii sama xarit la dañuy xool ñoo xam ni rupture bi ñu bëgg a woote dañ ko war a dem liggéey ba kenn duñu yàpp ñun duñu jox spectacle bi ñu doon xam ay ak ñoo xam ni dañuy ñëw di tàggaatee ka yuuxoo ko man ku nekk jàpp na ni mën na wax nañ dëgg ku nekk am nga possibilité Pastef moom macha allah. toujours militant de qualité la am ñëpp mën a dem assemblée yàlla xam na ko mais nag comme que 82 83 pour cent am nañ jiitalaat suñu don de soi bañ ko fàtte ginnaaw nañ fexe ba bu coow am nañ fexe ba bu coow am bu ñu kenn génneel euh, film vidéo bu ñuy xeexe bu ñuy xëccoowi nañ ko def ci dignité buñ mënee am consensus dinañ yombal liggéey bi de ñu ne ñii de ñii lañ tànn suñ jàppee ni mënuñu am consensus na nekk lu rafet a rafet xañ kenn mais bu coow am waaw dañu bañ a fàtte ni bis bu liste yi génnee tamit ku ci gisul sa tour neel noonu la ko yàlla bëggee ndax élection ñun gis nañ ci miracle bu ne gis nañ ay suppléant ñu mujj leen a fal donc lépp lu ñuy yootu yàlla nañu jig mais principe bi foog ñu respecté ko wala ñu nekk parti boo xam ni dañ ñoo war a jéppi gis nga ñun bu ñu commencé jéppi rek musibaam te jéppi ñu rek mooy def ni ñoom fu ñu dajee xeex fa gis nga leen bërki démb seen organisation bi ñu def ay xeex ak a Pastef ngeen mësagul dégg am nañ réunion bureau politique ña nga doon xeex mosoo leen ko dégg te yàlla buñ ko dégg loolu mooy sunu ca sunu sunu sag niñ doon doon de soirée rek nañ ko continuer wóolut suñ président ak ñi nga xam ne jiital na leen pour ñu tànn ñan ñooy def li si arbitrage yombul parce que qualité bee bari macha allah ci parti bi qualité yee bari mais il faut ñu représenter ñëpp ñi jàngat ñi jàngul ñi liggéey artisan profession libérale médecin day am kuy dawal oto kuy jaay ambulant ñëpp lañ war a représenter assemblée pour créer une assemblée de rupture ndax dañoo war a defaraat réew mi enjeu yi dafa rëy de wallahi enjeu yi dafa rëy pour defaraat réew mi ba nga xam ne yàq-yàq yi fi am dootul mën a am bindaat marché public yi tëggaat institution yi ba nga xamante ni kenn mënatul yàq ci réew mi même boo ko bëggee doo ko mën parce que tardé nañ suñu réew mi dafa tardé te ñun dañoo am avance bu rëy bu ñuy xoolee gis nga tey Pastef gagné na élection su dee investiture jàll na coow am ñoom asa ñoom xam nañ ko de moo tax ñuy jéem a dugal suñu biir dinañ fexe tout xam ba ñenn ñi pour jéem ñoo euh, ñu xuloo ci suñu biir diñ ci gis opposant boo xam ni day fexe ba benn coordination xuloo ba ñoom ñu mujj gagné parce que bu leen fàtte dara lu tax ñu suñu responsabilité engagé gis nga waa seen dignitaire yëpp dañoo bëgg a bokk ci liste yi ndax ñoom mbalaanu kiiraay la ñuy la ñu bëgg pour bañ ñu topp leen ci liñ leen di topp maanaam ñoom dañoo jàpp ni être député égale immunité te immunité mooy impunité ñoom loolu mooy triptyque bi ku nekk député am immunité ku am immunité ñu jàpp nañu ne impunité maanaam ñoom dañoo sàcc ñu bëri ci ñoom dañoo luubal alalu réew mi daal ni dinañ dem ci électeurs yi compal leen ci xaalis bi ñu sàcc pour ñu wutal leen mbalaanu kiiraay mu nekk lu yéeme lu doy waar loo xam ni xas xas xas électeur xas citoyen weesuwul loolu ni jël nañ seen xaalis mais dinañ ci jël lu ñu leen compale pour ngeen voteel ñu ba kenn duñu mën a topp ba kenn xaalis boobu ñu sàcc ñu lewal ko yow ki sàcc sa xaalis nee na yow la yaakaar pour pour ñu bañ koo topp pour mu bañ a fay loolu mooy enjeu élection yi kese du leneen te loolu foog ñu wax ko suñu campagne ba ñëpp déggu benn citoyen warul participer à l'impunité yi yi député yi bëgg nañ ko lànk ba tëdd ci suuf waaw pour ñu fay nag il faut ñu éviter leen ñoom ci assemblée lañ ko yaakaar di yaakaar ni xëy na ku ci nekk député da am impunité wala ñu am majorité boo xam ni kenn du leen mën a topp ancien ministre yi benn cour de justice parce que cour de justice moo leen yi atte ministre bu sàccoon il faut cour de justice pour nga am yooyu yëpp il faut nga am masa assemblée boo xam ne minimum minimum il nous faut cent dix cent quinze députés c'est le minimum loolu nag bu ko bëggee ànd bi ñu dañ koy àndaat cohésion bi ñu amoon ñu koy pare ko pare fanaanati ci àll bi waxtaan ak nit ñi dëgg ut les bons arguments juboo ànd ku nekk mën boo yeen demee ba nee naa la mënoo leen a am consensus ngeen jàpp ni yéen moom mënoo leen a am consensus c'est un problème mais bu ngeen koy def defit fexe leen ba seen liste nekk des listes de de de cohésion ñi déposé ñu bàyyi leen mais saagante bu mu am dóorante bu mu am tojante bopp bu mu am filmer ay ay ay ay réunion di ko dugal ci ci YouTube beeg di ko dugal ci réseau sociaux yooyu yëpp bu mu am nañu xam ni ëpp ñi perte pouvoir bi waa nguur gi lépp lu ñu mën pour diviser ñu dinañ ko def parce que ñun bu ñu diviser wul kenn ñoo gagné ñun benn problème la Pastef am muy biir Pastef benn problème la Pastef am muy biir Pastef mais xam nañ ñi si des ñun toll ñu ñu fenn ñu tamit xam nañ fi ñu jóge nañu xool suñuy martyr leur mémoire ñu parachever l'œuvre bi nga xam ni mooy permettre président Diomaye ak premier ministre Ousmane Sonko ñu disposer d'une majorité bu voter budget bi avant fin d'année ñu jeter les bases d'un développement définitif du Sénégal suñu responsabilité Sénégal ak ñuy xool Afrique mu ñuy xool àddina mu ngi ñu teg bët di ñaan yàlla may ñu ndam ci élection yi ñu booloo ñun ñëpp pare ni ñu xamoon ñun xam nañ terrain bi amatul toog amul noppalu commencé eh, fan la ñuy campagner fan la ñuy dugg ñu créer ay équilibre liste yi ñu fexe ba mu am équilibre boo bokkee fii sa suppléant na bokk feneen ngeen xool département yi gën a peuplé critères yooyu jël leen ko ngeen xool zone yoo xam ni foofu xëy na candidat bi génne fa ay critères rek la mais lu mën a xew bokk ngeen ceeg bokk leen ci bu kenn toog di seetaan bu kenn toog di xaar bu kenn toog di seetaan bu kenn toog ñun moyen mu mosuñoo politique loo bu kenn ni man ministre joxuñu ma moyen ministre buy sàcc xaalisu état di leen jox ay moyen amu fi parti bi dina mobiliser ay moyen bien sûr mais ñun lañ xamoon de bu kenn xaar parti bi na ñëpp pareel seeni moyen bopp parce que victoire bi dafa war a leer ñi amoon zéro pour cent jàpp ni tey dañuy taxaw di fëgg seen dënn mën nañ am groupe parlementaire il faut population bi wan leen ni leen on a changé de système buñ paree ku nekk dem place am ñu xam seen bopp moo gën ñuy jéem a jaxase réew mi donc affaire bi du ay force c'est important di baalu ak ñëpp di ñaan yàlla ubbi dënn yi tàppe xol ñu def euh, élection yi ci jàmm ak salaam jarul invectiver jarul topp waa opposition di leen saaga wala di xeex ak ñoom nañ fexe ba élection yi jaar ci jàmm enjeu yi mooy des élections qui se tiennent sans quoi ñu gañe gañe bu leer ñu war a jël retraite politique jël retraite mu am beneen ère politique ñu préparer ji locales yi bu leen fàtte ni y' a plus de cinq cent et quelques communes plus les départements moo tax ma ni élection yaa ngi ñëw plus ñi nga xamante ni beaucoup de postes encore à pourvoir yoo xam ni war nañ koo joxe bu kenn ñaaw daal diggante bi nañu continuer suñu don de soi ñaan yàlla may ñu nawetu jàmm élection wu jàmm ba ñu am ndam incha allah merci à tout le monde